teel teel teel am teel yi di leen nuyu leen di leen nuyu yoonu Serigne moo di fexe ba mboolem loo xam ne rek taalibe yi ci jàpp ba am gërëm ñu jàpp. mboolem loo xamante ne ci eh, liggéeyal jullit ñi la moo xam ci sama àll lépp loo xam ne rek dana jariñ jullit ñi jariñ yi eh, ñu def ci yitte ndax gaa yu baax yi foofu nga leen doon boo bëggee nekk damay gaa yu baax yi dangay fexe rek ba lépp lépp lu aw yiw rek nga bañ ci xel dara lépp lu ne yiw la rek dafay may day may aw yiw ak lu mën a doon ci lu baax soo ko mënee nga jëfee ko bu ko defee am ci woowu doonu gaa yu baax yi ndax gaa yu baax yi kat suñ leen dee doon ci salaaxe lañ leen doon muy jëf yu baax ak amalu saalix ak euh, loolu ñuy wax euh, suñu xalaat waaw parce que foofu loolu ngay la la dañuy doon gaa yu baax yi euh, ci fexe ba rek. defar suñu biir defar suñu biti ba suñu biir muy suñu bas basatul xal yeewu ci ne jàkk eh, borom bi subhaanahu wa taala eh, di yàlla ci biir di dund yéen sëriñ bi te itam sa saaxir nekk sorek lépp loo xam ne rek eh, lu ñuy nuru lu ñuy xeebe ab jullit la saar bi na mel noonu baatin bi laa mbokk leeru yàlla te tamit tam nekk xadaf boo xam ne yitte joo xam ne ummatu xaaliya lay baax yi fan seen tànk ba seen ne bu ñu seqee njóoba bu ñu tegee rek bu yàggee rek da nga sori léegi solo kalimu tey wa amul saa kullu kalaamati ibnu aadama laa ilaaha amrun bil ma'ruuf wa nahyi anil munkar wa zikrul akbar mboolem kàllaama gaa yu baax yi lan la woon moo doon ne amran bil ma'ruuf mooy fexe di wax lu baax di ko digle nekk wa nahyi anil munkar fexe teg lépp loo xamante ne safaan la loolu la ñuy wax ma daal saxaawa nga koy sori sori da nekk wa zikru la akbar ak tudd yàlla dëkkee la gaa yi baax yi la yonent yi nekkee la ñu wootoo te muy dund murit muy dund taalib muy dund ci bëgg mu gërëm seen borom subhanahu wa taala ndax ak boobu yàlla dëkkee ko jaar ba loolu la gars nekk la mën a jaar itam jege gars yi alhamdulilah ba lii ñuy def kenn du ci xel alhamdulilah itam ba lii ñu àndal itam alhamdulilah itam ba mbooleem jotaay bi yëpp eh, tabarkaal di jotaay boo xam ne kenn dina ne kenn defaat toogaay kon li sant la ak gërëm di tàggatoo ndax guddi na te dafa am ci mbooloo bi ñu war dem ba Thiès ñi war dem ba Ndiarène eh, am ñoo xam ne dañu war a duggaat biir Dakar kon jot bi suñu fekkee wax bu gën a gudd rek dana mujj am ñoo xam ne mën di wax waaleykum salaam wa rahmatulah

Tamam.